donc tey jii dañoo dajewaloon fi moy Benno Bokk Yaakaar bi nga xamné mom moy mooy euh, Benno Bokk Yaakaaru commune Mbour bi ñuy élection yi dañoo paré won ba paré installé suñu comité électoral communal dem autour des centres de vote ñu installer fa des comités électoraux yi nga xamné ne ku si nekk dañ la jox benn centre de vote au niveau des quartiers tamit ñu ñu constitué fa ay comités yo xamné ñom ñoo wara def proximité yi ñom ñoo wara a dugg ci askan wi pour wax leen li fi président Macky Sall def ak li nga xamné suñu candidat muy Amadou Ba mom la waron continuer à travers le plan Sénégal émergent jël suñu matériel luy suñu auto préparé wu lepp waye nak ci digënté bi ku nekk gis na li xew moy une partie de l'opposition ñom ñoo ñaan président Macky Sall ne buñ sañon dé élection yi ni muy demee ni amuñ ci yaakar si mu jub si mu mu jaar yoon ñu ñaan ko pour que ñu mën a taxawal lépp doogaat waxtaan yaatal waxtaan wi bu ko defee ñëpp ñu mën a déggoo ci li nga xam ne noonu lañu war a doxee. bi loolu amee nag ñun ñu xool bu baax Sénégal ku ko seetlu ku fi gëj nga ñëw fi nga gis vraiment jéego yi nga xam ne mu ngi koy def ci wàllu développement ci wàllu émergence. mu ci fan yi at yi nga xam ne nii moom la ko président Macky Sall jox yorin bu rafet yorin bu jaar yoon ba nga xam ne actuellement bu ñuy lim dix leaders mondiaux yi nga xam ne ñoom lañ gën a bàyyi xel ci àdduna bi.

ba lim ñu diggoon ci plan Sénégal émergent bi ñu ko commencé di gis def naa ne TER bi ñëpp gis nañ ko BRT bi ñëpp gis nañ ko autorité yi gis nañ ko ci le plan social bourse familiale gis nañ ko couverture maladie universelle gis nañ ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñun Mbour fii moom euh, port yaa ngi fi aéroport yaa ngi fi euh, zone industrielle yaa ngi fi zone touristique yaa ngi fi lu nekk ñu ngi koy gis te loolu amul kenn koo xam ne ni mën nga ko mën ko ko weddi ñu gis ne Sénégal également dafa nekk ci diggante boo xam ne maanaam environnement boo xam ne ku nekk mu fay gis ay coow ay xuloo ay xeex ay force yoo xam ne kenn xamul fan lañu jógee ak ku leen financé ak ku leen ngemb ñuy dugg ci dëkk yi di ko toj ñu xam ne nag Sénégal war na am taxawaay bu dëgër boo xam ne ni moo koy permettre ñooñu noonu kenn du ci mën dara kenn du mën a yëngal suñu dëkk bi kenn du ci mën a indi ay problème kenn du ci mën a indi ay coow kenn du ñu mën a vraiment jaxase ñuy xeex si suñu biir si loolu nag ñu gis ne président Macky Sall bàyyi na xel loolu yëpp nee mom moom ci ay élection bokkatul nekkatul candidat waye bëgg na buy joxe dëkk bi nak mu joxe ko ci euh, situation bu baax ci jàmm ak ci salam ba loolu motax bi une partie de l'opposition bindé ko lettre mu recevoir len ñeneen ñi tamit def ay ay ay ay commission d'enquête ba pare def ay proposition de loi mu ne nañ ñëpp taxawaat ñu toog waxtaan bu ko defee ñu mën a xoolaat élection yi processus bi yëpp ñu évaluer ko auditer ko auditer ko

bu commune Mbour nga avons ne parti yu mag yi yëpp mouvement nous ak personnalité indépendante jeunes ay femmes Nous ne ko de Inshallah, si décision nous bu ko Sénégal ñu nous a dajaloowaat Nous ñu nous avons nous waxtaan ko bu mu Nous avons baax processus bi nous euh, problème fichier bi problème euh, nationalité double nationalité euh, problème parrainage lepp ñu xoolaat ko ba mu leer bu ko defee ñu jëm si élection yoo xam du am contestation ni Sénégal daan bu voté ba si ñu dem liggéey loolu waruñ ko waruñ ko perte loolu moo tax président Macky Sall jël décision ñu ne ñun nag doo si wéet dinañ Nous yow dinañ ànd yow si dialogue bi dinañ ànd yow si wi yow si dooleel la ba Sénégal gi nga bëgg dem vraiment mu doon Sénégal. jàmm Nous Sénégal boo xam ne dina tegu si développement yi nga xam moom ko moom ko moom ko ko teg ñuy euh, jaale nag ak di regretter bu baax euh, ñi nga xam ne ni ñoo gaañu ci manifestation yi fi génn euh, muy loo xam ne dañ koy regretter waat incha allah bu baax di ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiitu ji yàlla yóbbu leen ci àjjana yu gën a kawe seen famille yi ñu fi bàyyi yàlla teg ci ñoom loxo ñi blessé ñu gaaw wér mën a dellu ci waat ci seen i activité te ñuy wax nag vraiment suñu mbokku opposants yi ñoom ñëpp ñu si bëri ci ñoom bi ñu leen seetloo ñi manifester ay xale yoo xam ne tollooguñ sax fu ñu amee carte d'identité bay voté eh, ñoo xam ne seen place sa jàngukaay ba la war a nekk wala sa apprenti bu ne apprenti la si liggéeyukaay ba la war a nekk mais ñu jël leen manipuler leen wàcc leen si mbedd mi ñuy tuur ay mbay di taal wala jël ay pneu di ko taal di jaamaarloog ay policiers man see gaañu loolu ñu ngi koy regretté bu baax di leen ñaan vraiment ku si bëgg manifester xam ko bu baax fi ngay jaar pour manifester waaye li nga xam ne yéene ko sa doom sa doom bi nga yóbbu Canada sa doom bi nga yóbbu France sa doom bi nga laq li nga xam ne yéene ko vraiment bu koy yéene doomu jàmbur yi nga xam ne ñoom ngay wàcc ci terrain bi te gis ngeen manifestation si boppam ñoom ñoo ko doon kaas nee nañ dañ leen indi si mbedd mi ba pare leader yi leen fa yóbbu gisuñ si kenn je crois ne loolu tamit euh, parent yi war nañ si jël seeni i responsabilité ñu téye seen doom yi bu baax beneen bi mooy élèves yi tamit ñu toog seen école yi ñu jàng ñu bañ a jaxase politique ak enseignement wala ak éducation wala am jàng euh, un syndicat bu nekk si wàllu njàng njàngale mi s'il y a des problèmes si wàllu seen i droit ak seen yelleef je crois que mën nañ utiliser lu leen neex tous les moyens pour loolu mais ay problème politique warul tax ñuy génne xale yi di yàq seenam jàng au moment où yow say doom yaa ngi leen yóbbu foo xam ne euh, seen seenam jàng du am benn rëq-rëq du am benn problème loolu tamit ñu ngi ñaanaat parent yi ñu téye seen doom yi bu baax te xam ne eh, àdduna dara jaru fi yenn mbir yi te ku si gaañu tamit en général eh, ku la seet si sax pour nga am ku la seet si sax ne la marsaw problème lay nekk beneen bi mooy infrastructure yi ñuy yàq di ko toj kiosque yi ñuy yàq kiosque kooy yàq kiosque am rek yóbbu nga ko chômage koo toj boutique am yóbbu nga ko chômage station boo taal yóbbu nga ay nit chômage si dëkk boo xam ne nag ñu ngi war a taxaw pour utal nit ñi liggéey utal xale yi liggéey boo dee def manifestation yoo xam ne dafay yàqal nit ñi liggéey vraiment yaa ngi delloo dëkk bi ginaaw infrastructure publique yi nag stade yi euh, euh, maire yi euh, hôpitaux yi centre de santé yi ay ambulance yëpp ñuy jéem a yàq mais loolu après ban xaalis lañ koy defaraate bu dul ñun suñu xaalis bi ñuy dajale ñun ñëpp à travers les impôts loolu tamit vraiment ñu ngi ñaan ñëpp ñu gën a toogaat gën a bàyyiwaat xel gën a am prise de conscience ñu xam ne loolu ñuy yàq kat ñun ñëpp ñoo ko bokk te euh, lu ñu si yàq rek ñun ñoo koy defaraat euh, Sénégal nag benn bopp la kenn mënu ko xarñaar te jàpp nañ ne euh, ay mag ñu baax ñoo samp dëkk bi te ñoo ko téyal seen bopp jàpp naa ne ku ko bëgg a yàq ba moytu yow yaay yàqu yàqule wala nga yàqu yow sa bopp te loolu def naa misaal bi soriwul nañ ko xool ci suñu biir nañu gestu su lu soriwul ñu gis ñu doon jéem a taal dëkk bi yëpp fan lañ mujje ñu buggoon yàq dëkk bi yëpp fan lañ mujje ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar nañ bàyyinte loxo uy ji dialogue bi ñu toog waxtaan ñu pencoo suñu dëkk bi bu lu ñu gis comme rëq-rëq si processus électoral bi ñu jooyanti ko ñu ñëpp ñu préparer wu dem si ay élection ki nga xam ne moom la yàlla décidé na moom mooy diriger suñu dëkk bi bu incha allah kooku dong moom mooy diriger dëkk bi bu ko Sénégal continuer yoon bi nga xam ne moom la ko àdduna bi yëpp gisee moom la ko àdduna bi nawee moom la ko àdduna bi yëpp fonkee loolu mooy li nga xam ne moom la waa coalition benn Bokk Yaakaar bu commune buur buggoon a wax ñu waxat encore une fois que président Macky Sall ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa kanam ñu ngi sa wet décision yi nga jël pour mettre le Sénégal euh, si yoon bu nga xam ne bu baax bi nga ko teg insha allah ñun ñëpp dinañ ci ànd ak yow gungale ko ba nga mën a pouvoir bi sa successeur comme ni nga ko buggee si jàmm ak si salaam.